gouvernementale bi loolu moo waral yéen a ngi dégg ñu ne dossier dañ koo woo di wax ne Macky Sall bés boo laalee imam Ali Ndaw dinañ la génnee palais Macky Sall bés imam Ali Ndaw dinañ la loolu dossier par askan bi wasalaam imam kenn du ko laal kenn du ko laal kenn ñu déglu imam Alioune Badara Ndaw ñu déglu imam ñu déglu imam bu daaneelee ñu àggale bàkk yi. bismillah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñu ngi leen di jéggulu ci naaj wu tàng wi waaye lépp li muy tegtale rek mooy seen détermination ak bëgg bu ngeen bëgg seen askan feeg ñu ngi gis lu mel nii nga sànni sa bët ba mu jeex ay kawar yu ñuul rek ngay gis suñu yaakaar dafay gën a dëggu ci ne réew mi insha allah lu fi nekkoon ci loo xam ne ay mbuxum la ndaw ñii ma gis danañ ko lijjanti insha allah ñun nag ñu ngi wax ci turu coordination départementale yi yépp moom lañ ma sant ma wax ci seen tur sunu xol sedd na guy ci gis ay ndaw ay mag ay góor ay jigéen ci naaj wu tàng wii ci karo yi ay xale yu tuuti toog ci karo yi kenn fayadul leen ngeen ñëw fi kenn ku nekk poosam la waxtu bi muy ñëw ñu bari ci yéen jaaruñ ci ndekki waxuma la kon lii damay may tegtale mooy Sénégal am na ay doom yu pare pour aar ko incha allah léegi nag président de la république ñii say njaboot lañu dañu jóg pour libérer la ci lobby yi nga xam ne ñoo la imposé imposé suñu assemblée nationale lii nga xam ne mooy agenda LGBT bii nga xam ne moom la ñuy commencé di ko lawal ci askan wi ndaw ñi mag ñi góor ñi jigéen ñi. dañu jóg pour libérer leen yéen gouvernement bi dañu jóg pour libérer leen yéen ñi nga xam ne yéen ay duuna ila alim alxaybi wa shahada fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun imam ahmad ibnu hanbal dafa wax benn xadis nettali ko ne inna amalakum tuuradu ala ashairikum wa aqribaikum in kaana xayran istabsharu bi wa in kaana xayra dalik qaalu allahumma la tumithum xata tahdiyahum kama hadaytana maanaam laaya bi dafay wax ne seen jëf yi seen jëf yi nii ngeen teewee tey ñu ngi koy gaaral yàlla yàlla ki teg bëtam maanaam foofu sax dama juum ni ma ko waxee dama ne yàlla ki teg gisam waaye ñu ngi koy gaaral rasulullah sallallahu alayhi wa sallam honneur la ñu gaaral ñu tey ci kanam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu teg bëtam ci ñun waaye ñu ngi koy gaaral ñu ñu baax ñi fi jaaroon ñépp sunu maam yeeg sunu baay yeeg sunu sëriñ si moo tax ma ne kontaan nañ fañ tëgg lii nag nga xam ne moom la sëriñ daam wax la woon wonni na la woon wonni na la woon wonni na dootuñu nangu mukk ñu jël yilimaan gaw ko ci minbar gaw ko ci mihrab dafa jot pour yilimaan yi ak sëriñ yi ak doomi réew mi jógaat jël réew mi teg ko ci loxol doomi réew mi te législatif yi di ñëw insha allahu dana ko wane jërë ngeen jëf yàlla yàlla fay leen yow barakallahu fikum jërë ngeen jëf jërëjëf imam Alioune Badara Ndao